njëkkee ko ci source A lan la xëyee tey. alors dañuy door li nga xamante ni moom mooy euh, la une des journaux ak source A muy journalu kër gi mi nga xamante ni mi ngi xëy addu ci pàcc yu bare bare bari bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi nag mi ngi revenir largement ci li nga xamante ni moom mooy chavirement d'une pirogue à Nabadji Civol euh, je sais pas euh, Omar après di ñu leeral la fan la nekk parce que bëggoon naa koo xam. maatam la nekkee. région voilà donc ba tey yéenekaay bi di xam leen ni am nañu fa cinq corps yoo xamante ni kenn mënu leen a gis mu mel ni nag euh, gaal ga dafa daal di këpp waaye nag li ci gën a doy waar moom moo di euh, quatre personnes yoo xamante ni euh, ñoom lañ ci gën a nemmeeku ay mineurs lañu seen i at toll ci diggante huit ans ak dix ans que ca gënoon a mag di. Euh, tolloon ci 42 ans moom nag sol woon gilet de sauvetage donc nag mu nekk yoo xamante ni nag doy na waar ñu ngi koy nemmeek bu ñuy jooy mbëkk mi lii ñëw dooleeku suñu kaw dafay gën a compliqué toujours à la une de ce de ce journal mu ne las de de courir derrière euh, les dettes qui lui euh, que lui doit l'État du Sénégal Eiffage arrête les chantiers sans bien 1300 emplois perdus donc lii nag mu nekk loo xamante ni dañ koy déplorer bu baax a baax a baax di ñaan ñu reconduire li nga xamante ni rek moom moo doxoon ci diggante état bu Sénégal ak Eiffage ndax ndaw ña fay xëy ak ci loo xamante ni ay jafe-jafe yoo xamante ni ñu koy jànkonteel ci seen wàllum euh, liggéey ba tey ci xëtub euh, journal bi mu xëy ci wàllum assemblée nationale mu ne convoqué euh, pour la suppression du HCCT et du CESE e. si les députés Ah, si oppose jomay peut y trouver une excuse pour dissoudre l'hémicycle mu mel ni nag li nga xam ne jël nañ ko mu nekk yees démb président Bassirou Diomaye fay la muy sàkku moom mooy ñu daal di dissoudre li nga xamante ni moom mooy HCCT ak euh, CESE jëm ci wàllum yaxanal li nga xamante ni rek moom moo di gafak ak réew mi alors euh, Omar dama lay bàyyi nga décortiquer ñu li gën a fës à la une de ce journal waaw euh, d' abord euh, par rapport ak assemblée nationale bi ñu convoqué le 29 prochain euh, pour supression du CSE conseil économique social et environnemental ak du haut conseil des collectivités territoriales mu doonoon en fait loo xam ne nii promesse de campagne la woon boo xam ne nii waa Pastef ñoo ko defoon donc xam naa ni c'est l'occasion ñoom pour ñu respecte seen promesse de campagne boobu léegi nag bon euh, ça dépendra aussi de la volonté des députés de l'opposition Euh, bon qui étaient au pouvoir mais actuellement qui son à l'opposition muy waa Benno Bokk Yaakaar ak ñu ñu àndal donc ñooñu bu fekkee ni ànd nañ ci conseil économique social et environnemental ak au conseil des collectivités territoriales euh, dinañ ko mën a supprimer en tout cas dinañ leen jébbal euh, proposition de loi bi projet de loi bi léegi nag ça dépend bu fekkee nag ñoom accepté nañ loolu bon xam naa ni Euh, euh, pouvoir bi du am excuse pour dissoudre assemblée nationale mais suba suba bu fekkoon ni tey ñoom yóbbu nañu kii bi euh, ñu vote vote am gars yi bañ ce sera une occasion en fait pour pour waa pour parce que ñoom dañuy mën a am lay ne ah ñun de ñoo ngi bëgg a liggéey ñoo ngi bëgg a respecter suñu promesse de campagne waaye ñi nga xam ne nii ñoom ñooy waa ku kujje gi ñoom ñoo ko bañ mhm. l'autre chose c'est par rapport ak Eiffage Eiffage Sénégal xam nga ni euh, actuellement problème mu li nga xam ne nii moom mooy chantier yu am parce que bon état dafa arrêté ay chantier yu bëri mu impacté ñi nga xam ne nii bon dañuy liggéey si loolu xam nga Eiffage dafa am Eiffage marine am Eiffage concession Eiffage concession moom mooy yëngatu si wàllum autoroute beeg yooyu ñoom ñooy liggéey si loolu mm-hmm. ñoom bon je pense qu'ils sont plus de quatre cents personnes am na Eiffage marine boo xam ne nii boo xoolee euh, Euh, euh, yenn liggéey yoo xam ne day am si wàllum géej géej yooyu ñoom ñoo si liggéey lii nag bon c'est bon Eiffage infrastructure moom mooy Eiffage Sénégal ñoom nag bon Euh, actuellement dañu am ay problème parce que à chaque fois société yu mag yi bu ñuy liggéey ak état ñoom ils peuvent se permettre tey ji liggéey après état soog leen fay mm-hmm. mais nag bu ñu toogee lu yàgg di liggéey état mënu leen fay ak yooyu après ça peut impacter euh, mm-hmm. moo loolu nag actuellement moom moo dal Eiffage ñoom jëm nañ dajeek autorité yi pour euh, fexe loolu mën a saafarawu saafarawu mais ba léegi comme que mënul saafarawu ñoom euh, donc 1300 euh, emplois sont perdus à cause de ça l'autre chose c'est le chavirement d'une pirogue à Nabadji Civol mm-hmm. bon loolu moo ngi xewee démb pont xam nga ni gars yi dañuy traverser le fleuve Sénégal mm-hmm. léegi nag bon gis nga pont bi ngay gis nii dafa am benn pont bu nekkoon foofu pont bi nit yi mënuñu ko mënatuñu ko traversé ndax c'est pas sûr surtout en période d'hivernage donc les gens utilisent des pirogues nag benn pirogue bu ñu utiliser woon ba mu defee chavirement mm-hmm. il y a eu cinq personnes qui sont portées disparues ñu ñaan rek xanaa ñu gis leen ci jàmm ak salaam mais bon xam naa ni actuellement ñu ci bari amatuñu espoir mais bon Euh, nañu ñaan yàlla rek kii quoi mais côté boobu daal gars yi sonn nañu ah, sur ñu nekk si côté la vallée du fleuve Sénégal actuellement ak taw bi nu mu bëree secteur boobu surtout ay Matam ak yooyu nit ñi daal sonn nañu côté boobu quoi. Burkina mhm. Faso Burundi Boulaye Dia du participer. waaw euh, Boulaye Dia bon moom xam nga ni Boulaye Dia moom Salernitana la nekkoon. Salernitana, bon, Boulaïdia, après il a eu des problèmes avec Salernitana. Bon, je pense que finalement, il a été recruté par la Lazio. Bon, les Guinac, bon, comme comme il n'est pas un peu en forme, y a eu beaucoup de problèmes. ak euh, parce que temps yi rek supporters yi ñoo ngi ko doon attaque yooyu parce que club bu mu nekkoon dafa wàcc en deuxième division donc euh, bon comme que xam nga rek à chaque fois Aliou Cissé waaw Aliou Aliou Cissé moom buy kii xam nga booy booy jël ay da ngay jël waa kay les jours qui sont en forme quoi waaw kay am nañ compétition quoi Seynabou la une de source A vite fait Euh, xanaa ma laaj cofal rek. waaw c' est vrai <laughs> il faut ñu daal ci jël jox. cof man li gën intéressé mooy le le problème de kii bi pirogue bi nga xamante ni dafa chaviré fale ne. Naba ji si vol. waaw Naba ji si vol nekk fee si maatam léegi man en fait loolu li si mën a jàngatee mooy dafa indiwaat beneen problème boo xamante ni booba tey ñu ngi koy wax te mm. mooy les mesure de sécurité yi nga xamante ni. Mm. nit ñi dañ ko war a di def bu ñuy déplacé wu. Mm. oto yi dañuy am problème ndax duñ takk ceinture. gaal yi même chose du nu sol gilet je crois que si li euh, instant bii nii ak taw bi ni nga xamante ni moom la bare keroog ministre mi ngi génnee benn communiqué di wax fi nga xamante ni état fleuve Sénégal fi nga xam fi mu toll ndax mi ngi commencé di fees boo xoolee ñi nga xam dañu dëkk ci côté ndox dañuy seetlu ni bu commencé di nawet ndox bi kii bi gi day yokk ñun à Saint-Louis ndox bi dafay daal di jël avancé ba ci kanam dañ ko daan jël di ko gis tout temps mais je crois munuñu nekk ci genre situation yi ba pare nit ñi ñëpp xam nañ ñoom gaal yi la ñuy traversé di dem. Mm. te mënuñu mettre à leur disposition des gilets yoo xam ne au moins dina mën a protéger yenn euh, nit ñi nga xam dañuy def traversé bi. vraiment c'est très regrettable di ñaan yàlla koor yi nga xam ne kenn gisu leen ñu gis leen ci ñu gis leen ci jàmm. peut-être les pas les chances ñu gisaat leen en vie c'est c'est c'est très minime. Mm-hmm. mais ñi ngi ñaan yàlla même fekk euh, ñu ñaan yàlla ñu gis leen ci jàmm waaw. en tout cas c'est très difficile sincèrement c'est très difficile ñoom la ñu yeewoo ñoom euh, waa donc euh, yeneen koor yi yàlla na yàlla gis nit leen ba ñu feeñ. yàlla yaram la te ñu jël seen i dispositif aussi ba pare di jël ay gilet de sauvetage puisque traversée bi yàggul mais aussi euh, gilet de sauvetage c'est très important dama koy faral di wax surtout même les pêcheurs war chaque jour ñun presse bi war nañ leen ko fàttali da ngeen di sol seen gilet ñoom xam nga kii lay wax tàpp ñoom ñoom lébu yi dañuy naan tàpp tàpp mooy comme genre tàppet mais moi j'avais j'avais l'habitude de leur dire du yëfu tàpp au contraire il faut guerrier la le fait ngay jël sa sa gilet de sauvetage mais dangay gis ci lébu yi su ñuy dem ah, yëfu tàppa yi yëfu tàppa yi ñoom pour ñoom xam nga. voilà xam nga géeju xam nga dex ak. dañuy sol gilet dex dafa diis quoi ndoxu dex dafa diis. ndoxu dex dafa ah, diis. ndoxu dex waaw moo tax jën yi lewet. jënu dex lewet sax waaw ndox moom métti ndax bu fekkente ne da nga xam foo xamante ne boo nekkee si ay problème di am foo jafandu di nga ni waaw mais boo nekkee su ndox amul foo ja amul foo jafe je crois que comme le minimum mooy amul ces gilets là nit kuy jóg même bu fekkente ni gaal bi am ko autorité yow miy jël oto gaal bi Ah. imposer leen ñu daal lay jox gilet boo xam ne da sol. amul affaire de quelques minutes la nga traversé après nga fii. Euh, d' accord ñu daal di ñëw ci li nga xamante ne rek mooy la une euh, de Sidi xaar tuuti ñu daal di ñëw ci li nga xamante ne mooy yeneen journée yi nan la ñu xëyee tey maman. alors ñu jógee ci euh, source A dem ci beneen quotidien bi di enquête quotidien qui barra sa une législative recomposition au forceps yéen i kaay bi nag mi ngi dugg ak ñun ci élection yi nga xamante ne ñu ngi koy wàcc tuddee ko élection anticipée jëm ci euh, wàllum assemblée nationale yéeni bi nag indil li nga xamante ni rek moom moo di taxawaay yi nga xamante ni euh, ñi yëngu ci langue politique gi amee nañ ko mu ne APR euh, actuellement nag mi ngi faire face à des défis de cohésion avec des départs et des dissensions internes maanaam waa APR jamono ji nag ci ay jafe-jafe rek leen daal di nemmeeku ndax ña fa jógee bari na malaise à on peut dire am na fa Ousmane Sonko ma ngay élargir li nga xamante ni moom moo di kawam foofee di Pastef waaye li ci gën a doy waar nga xamante ni gars yi na moon nañ ko moom moo di Khalifa Ababacar Sall mi nga xamante ni ma ngay euh, caytuwaat wala di catalaat parti socialiste ak yeneen i alliance yoo xamante ni ña ngi koy waajal jëm ci les élections législatives ñu jógee fa benn dem ci beneen quotidien bi nga xam ne moom moo di Vox Populi mi ngi revenir également ba tey ci langue politique gi daal di ne pouvoir opposition ça sent la poudre Diomaye veut dissoudre euh, le HCCT et le COSE jeudi il faudra les trois cinquièmes du, euh, bien, des députés pour faire passer la réforme du euh, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en tout cas du yomb du yomb dina metti lool sax Omar ndaxte booy xool jamono jii nii euh, nguur gi amul majorité assemblée nationale pour mu defar yu ni mel da ciy sukkandiku jéem a xool ana nan la ñuy waxtaanee bu fekkente ni intérêt réew mi daf leen di ñor aussi parce que bu ñu xoolee ci li nga xamante ni moom la président Bassirou Diomaye fay sukkandiku moom moo dañoo war a yaxanal poostu état bi maanaam. jamono jii bépp chambre boo xamante ni gisuñu utilité bu mu amal njëriñ ci askan wi dañu koy daal di supprimer conseil des collectivités territoriales bon c' est une trouvaille du régime de Macky Sall Macky Sall moom ko créé te ñëpp xam nañ ni bon c' est une institution bon man je dirais politique quoi parce que bon Euh, c'était pour caser peut-être ay alliés yoo xam ne ni waa ay ay waa ay njoñam mm-hmm. parce que gisoon nañ ni au conseil des collectivités territoriales c'est Aminata Meng Ndiaye moom moo ko doon gérer mm-hmm. donc euh, te mu yor parti socialiste dafa mel ni en fait euh, le partage du gâteau moo taxoon tey ji nga jël allié bu mel noonu yóbbu ko foofu conseil économique social et environnemental moom xam nañ tamit liggéeyam moom mooy en fait def ay recommandations au gouvernement tout ça léegi nag bon on a un régime qui pense que on peut se passer de ces institutions je pense que bon ils ont ils ont raison ah sur ce point là parce que il y a beaucoup d'institutions bëri na indemnité yi leen di fay bëri na bon ak avantage yi ñu am ak loolu mm. ñoom bon euh, gis nañ ni peut-être assemblée nationale mën na tenir en compte euh, genre li nga xam ne nii moom mooy kii euh, au conseil doon def ak conseil économique social et environnemental d'autant d'autant plus que bon peut-être il y a une association des maires du Sénégal affaire yooyu boo xam ne ni peut-être côté collectivité territoriale yi peut-être dina si mën a waxtaane léegi nag défi mooy tey ji nga am euh, majorité bu lay may euh, pour projet de loi boobu jàll mm-hmm. parce que il faut trois cinquièmes des députés kii ko parce que c'est une réforme constitutionnelle gestion yoo xam ne dañ nekk si constitution bi léegi nag loolu on va voir est que waa Benno Bokk Yaakaar dinañ nangu loolu est-ce que nguur gi desee déggoo waa Benno Bokk Yaakaar on va voir mais de toute façon bu fekkee ni député yi nanguwuñu voter proposition euh, projet de loi boobu xamal ni bon euh, ñii dinañ mën a am excuse suba pour dissoudre assemblée nationale den lii moo tax tout ba tey ci question bi nga laaj Abdou Mbow nag dafa mel ni daal dinay jël position ci boobu boobule combat bu ñu sukkandikoo ci Vox Populi mu ne le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar convoqué na na ab réunion d'urgence euh, de ses députés cet après-midi lan nag moo nar a nekk li nga xamante ne moom moo di taxawaayu majorité bi foofee ci assemblée nationale ab laaj la boo xamante ne yéen kaay bi moo ko daal di samp ba tey Vox Populi di ak ñun ci euh, pétition bi nga xamante ni rek euh, ab collectif daal dinañu koy. sumb maanaam ñoo xamante ni tey jii scandale ba nga xamante ni moom moo xew ca ONAS jaaxal nañu leen ñu def ab pétition tey jii nag daañu ko jébbal parquet financier alors ñu daal di fay jugee dem ci beneen quotidien bi nga xamante ni euh, moom moo àddu euh, jëm ci leneen benn ñu dem ci beneen quotidien benn mu jël mas tribune sport <laughs> voilà l'observateur la ñuy daal di xool waxtaanee li nga xamante ni rek euh, mooy double meurtre bi nga xam ne moom moo moom moo dal ci askanu Sénégal ñeel Aziz bala ak euh, ki nga xam ne moom la nekkaloon di Wali Baldé alors yéen kaayub groupe Futur Média bi dikk na ci dans les détails dikkaat ci li nga xamante ni moom moo di l'enquête ba lan la daal di génne mu dee di ne les euh, liaisons dangereuses askan wi nag war nañu xool ana nan la ñuy jëfandikoo ñi nga xam ne ñoom la ñu sekkal ndaxte da saa su nekk dañuy dégg suñu maami naan paaka balay rey sa mbokk moo koy daas daal di jox sab noon donc ku la jege rek moo la mënal yenn nii révélation nag su un groupe euh, de mal malfaiteurs euh, euh, opérant en duo ba tey yéenekaay bi di këk ñun ci ñi nga xam ne teg nañ leen loxo tontu yi nga xamante ni wute na ak li xew ba bokk na ci li nga xamante ni rek moom la ñu fa daal di nemmeeku ca démb enquête ba na bu lay nag ak ñamu àndaloon daanaka tey jii daañu leen defeere ñu janook procureur bu pikin Guédiawaye alors ñu jóge fa dem ci beneenuk quotidien ba tey laata loolu nabu doy na war lu ni mel jamono ji ñi di wax peine de mort ñi di wax Sénégal dañoo war a tënk ci diine l'islam ku faat ñu faat la rey gi di mel ni tulleek màlli jamono ji nag suñu euh, force de défense et de sécurité yi également ñi ngi woy ci ay enquêtes yoo xamante ni rek bëgg nañ ci am lu leer naka nga jàngatee réew mi fi mu toll ni nga xam ne booy dox sax sa dootul daal waaw ah, c'est vrai que c'est c'est c'est un problème sincèrement buñ ko koo ñu nangu ko récemment on a constaté que affaire de meurtre yi bari na affaire de gang yi mi ngi commencé di am euh, c'est une inquiétude pour la population di espérer rek xanaa les autorités dinañ gaaw jël benn solution par rapport à sa ndax euh, la question des peines de mort <laughs> je sais pas ndax daan ci mën a dellu si waat ndax ñëpp xam na ni Sénégal amoon na peine de mort avant. Euh, mais après dañ ko jël euh, dindi abrogé ko daal di koy def ay peine perpétuité affaire yooyu noonu pour un peu ndax dañuy constater parfois dafay am ay euh, erreur certes parfois di nga gis nit ki mu leer ne la ni kii moo rey mais bu ñu xoolee dëkk yi nga xamante ni ay États-Unis nga xam ne am na ay peine de mort ba tey da ngay seetlu parfois dañuy juum si nit ki nga xamante ni mën na daal di mën na daal di dem euh, sanctionné ko si peine de mort alors ko moom deful dara waaye dañ koy gis tout le temps c'est un risque qui mais. Euh, espérons que les autorités politiques les autorités étatiques les autorités religieuses ñoom daan war a mën a jël toog waxtaanee ko pour ñu mën trouver benn solution boo xam moom moo gën ci askan bi. mu ngoog ba tey dañ fay jógee donc euh, euh, espérons que ni lii. Euh, dina leer ndax askan wi soxla nañ ci ay leeral yu am solo solo solo waaye nag dañu xëyee wala sax démb si guddi l'exclusive li nga xam ne moom la daal di xëyee moom mooy wàllum escroquerie à grand à grande échelle yéenekaay bi nag daal di fesal nataalub premier ministre Ousmane Sonko mu ne des sceaux de la primature euh, falsifiée mu mel ni nag démb dafa am ñetti nit wala ñeenti nit sax yoo xamante ni daanaka dañoo jël signature Ousmane Sonko wala sax euh, cachet ba daal di koy utiliser pour mën a dem ca bitim réew yeneen i premier ministre yoo xamante xamante ne ci réewu Afrique la ñu daal di nekk disant que Ousmane Sonko moom moo leen daal di yónni jamono ji nag daal dinañu leen teg loxo xam naa ne dinañ ca dikk ci nu mu gën a yaatoo li gën a leer ba leer moom moo di falsifié nañu signature Ousmane Sonko waaye tamit cachet ba daal dinañ koy utiliser teg nañu leen loxo nag j'espère que enquête bi dina boy te it bu ñu sukkandikoo ci Babacar Touré bu Kewloo nee na kenn ci ñoom ci euh, euh, langue politique gi la nekk sax su ma bañul jum ci APR la féete donc nag euh, loolu la Babacar Touré daal di xamle ñu jóge fa dem ci beneenuk euh, quotidien bi nga xam ne moom moo di réew mi quotidien qui affiche le portrait euh, de Sidi Diop à la barre yéeni kaay bi nag di kaak naat ñun ci démb li nga xam ne rek moom mooy di Diop ba mu janook procureur la mu xamle moom moo di mi ngi jéggalu beneen yoon dootul amati di defati lu ni mel alors mu nekk satisfaction ouf de soulagement boo xamante ni rek sénégalais yi am nañ ko Fatima démb j'espère que Euh, amoon nga ci jàngat bu yaatoo yaatu ci ñi nga xam ne dañuy daw sans permis waaye également ñi nga xamante ni rek seen assurance demeewul noonu naka nga jàngatee démb li nga xam ne moom moo xewoon ca coulisse ya euh, coulisse coulisse ah d'accord coulisse su procès bi ah mais dawal sans permis tam loolu lii la délit la nag nañu waxante dëgg xam nga nit ñi dañuy wax benn wax mais nit ñi dañ koy déggee comme affaire fanatisme affaire yu demee noonu fii kenn gënu fee bëgg nit ñi Sidi Diop mais dafa def ay fautes yow yaa ngi dawal sans permis sa oto amul assurance nañu waxante dëgg yow fii assurance rek duñ ko négocier policier yi ci mbedd mi duñ négocier assurance yow yaa ngi dawal oto bu bees tàq jënd ko ay ñaata ay millions te amoo permis nañu waxtaan déli la su fekkonte ni c'est le sénégalais lambda génnagul de bu doon du waykat siiwul génnagul te dinañ ko fa tëj benn peine boo xam ne dina jëm trois mois ba 6 mois. yow waykat nga moo tax defoo fa sax trois semaines 4 semaines. mooy nit boo nekkee de la scène. mais da ngay joxe le bon exemple ba pare da joxe le bon exemple. am na yenn yoo xamante ni wa dañu war a dul ruus ñu leen siy fekk. mosoon naa gis benn vidéo bu waali mu ni moom ruus na di jël oto di si dugg sans mu yore permis wala mu yore beneen kayit ba muy nettali benn beneen document bu ñu ko laajoon mu ni leen loolu en fait du lu muy doxee mm. mais dafa mujj gaare. jël cat-cat kooku dem këram heureusement sore ah, mu récupérer ko indi ko ma war a attester kon attester leen waaw je crois que nit daal boo nekkee au devant de la scène a nga war a joxe la bon exemple def lu baax te itam nit ñi bu ñu topp wax wax wax wax rek ba nit ki bu nekkee ci erreur nga daan ne dañ ko war a baal buñ ko baalee tey ëllëg ci biir keneen def ko aussi dañ ko war a su ma këppoon kees su ma daaw da dina ma topp si yoon lañu waxante dëgg naa topp si nga waxal fi kenn kenn du ma kenn du ma fi plaideel këppkatu kees yi nekk ci ci biir kaso bi ñu leen di plaideel ak di leen ketal nañ waxante dëgg lutteur bi lutteur bi nañ ko waxte dee ñaata million wu jàmbur la la lekk France daal lu ko den ñu ñu ñu plaideel ko Modou duloo génn wax fii ñuy génn wax fii ñu dajaleel ko mu lii après ñu ñu ñu bàyyi ko mu génn bàyyi ko kii c'est que genre injustice yi waaw moo bari ci Sénégal nañ waxante dëgg nit boo nekkul ci yoon dañ laa war a teg ci yoon c'est pas parce que yow euh, nu mu tuddati nga kii nga euh, homme célèbre wala yu demee noonu bu bu Khalifa Ababacar Sall teguwul ci yoon ñu jël ko tëj ko ñaata at loolu lañu wax teguwul ci yoon Karim Wade teguwul ci yoon ñu tëj ko ñaata at Ousmane Sonko mi barki Dembo Ndiaye ñu tëj ko lan moo ko génnee et cetera waa lan moo tax waykat bii di Sidi Diop du tëdd penam ba mu jeex tàkk dafa fute nit du dawal sans permis boo rayee doomu jàmbur day perte soo dawal sans permi boo rayee doomu jàmbur day perte oto ba amul assurance day perte luy problème bi sénégalais yi ñoo war a bàyyi loolu dañuy déglu wayam dañ koy enjoy mais nekkul ci dëgg. lii rek la euh, nañ ko waaye au bénéfice du doute dafa mel ni teg dañ ko amende bu toll ci cent cinquante mille francs boo xamante ni war na ko euh, joxe. alors euh, baal ma si li ma la dagg ndax dama leen gis à tout le temps gars yi ñi ngi wax nekk naan dañ ko relaxé ba pare jox ko amende amande c'est une peine bu comme bu nee dañ ko relaxé dafa am si benn fee buñ ko relaxé donc boo nee dañ ko relaxé rek c'est comme si dañ ko bàyyi lépp. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy toog di ñu seetaan du ñu comprendre léegi ñoom dañuy yaakaar ni loolu fay xaalis boobu daf ko war a mais amande c'est une peine pénale cest à ki qu'il a été sanctionné pour sa faute. carrément carrément bokkul ak loo xamante ni ay dommages et nga xamante ni sanction mm-hmm. civile la nit ki da ngay daal di jël dama la tooñ ma euh, euh, nu koy waxee wolof dédommagé la xam nga ndàmp ndàmpaay ndàmpaay waaw na koy wax ndàmpaay bokkul ak loolu mais amende a reconnu a fauté et il a été pour ça carrément euh, mu ngook donc merci ci leeral yi ñu jóge fa dem ci beneenuk euh, quotidien bi nga xam ne moom moo di l'évidence ba tey mi ngi jàll jëm ci suppression annoncée du HCCT euh, et du CESE la mu xamle moom moo di Aminata Mbengue Ndiaye Abdoulaye Daouda Diallo daañu dem à la retraite La rationalisation de dépenses publiques en branle c'est ce que nous renseigne l'évidence quotidien ba tey rek nguur gi comme nañ ko diggee woon askan wi je pense que ci seen campagne waxoon nañ ne lépp loo xamante ne rek amalul njëriñ askan wi te ñu defoon ko fa muy ay poste politique daañu ko indi ngir euh, wala dindi sax ngir yaxanal poosu askan wi alors euh, mu mel ne nag euh, Aminata Mbengue Ndiaye Abdoulaye Daouda Diallo nag daf si mel ni nag fi mu ne ni seen poche la ñu nar a laal alors ñu jógee fa dem ci beneenuk quotidien bi nga xamante ni moom mooy les les échos qui revient sur l'affaire Aziz Dabala les enquêteurs en ligne font feu de tout bois yéen kaay bi nag mi ngi wax ne jamono ji ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci euh, TikTok bi ci di def ay live nañu moytu seen bopp ndaxte daanaka rek dina ci am ñoo xamante ni dinañ leen woo te it daañu leen déglu mu nekk inconvénient yoo xamante ni rek mën nañu koo jural seen bopp donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax Diomaye veut dissoudre le CESE e le Haut Conseil des collectivités territoriales les députés députés de Benno s'organisent c'est ce que nous renseigne les échos quotidiens yéenekaay bi nag nee na bu fekkente ni rek euh, majorité bi dañoo daal di rejeter boobule euh, projet de loi lu nekk mën na caa daal di xew waaye tamit nañu xam ne euh, Pastef minoritaire la ñu foofee ca pencum ndawi réew ma Abdou Mbaye nag daal dinay convoqué le plus rapidement possible réunion d'urgence à 17h ngir janook député yu Benno Bokk Yaakaar ñu jóge fa alors dem ci beneen quotidien bi nga xamante ne moom moo di euh, le journal du groupe euh, Walfadri qui barrasse à une législative anticipée le temps des euh, grandes alliances yéenekaay bi nag nee na jaay laalo fa cere joo ñoree comme on dit nee na jamono ji nag nañu waajal seen bopp ndax alliance yi fii la ñu ko soxlaa waaye tamit coalition yi fii la ñu ko daal di soxlaa jëm ci ay élection anticipée législative alors ñu jógee fa benn dem ci beneen quotidien bi nga xam ne moom moo di l'info qui titre en noir dissolution de l'Assemblée nationale législative législatives anticipées pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye doit faire vite yéenekaay bi nag nee na joxe na raison yi nga xamante ni moom moo tax son excellence président Bassirou Diomaye Faye war a def lu gaaw ngir mën a dissoudre assemblée nationale bokk na ci dige yi nga xamante ni sekkoon na ko ak askan wi alors pour ñu mettre ko en œuvre il faut nag ñu am majorité ci assemblée nationale te nee na lu mu gën a gaaw ci moom muy gën a baax alors ñu jógee fa benn dem ci beneen euh, quotidien le journal du groupe euh, des médias qui s'intéresse de tout à fait autre chose mu ne affaire Cheikh Dieng Cheikh Tidiane Dièye le scandale de l'ONAS atterrit à l'Assemblée nationale le peuple attend la vérité sur cette affaire qui secoue la République entre les deux chairs l'on ne dit pas la vérité effectivement noonu la demee nag diggante ñaari cheikh yi certainement am na ci koo xamante ni la muy wax méngoowul ak dëgg nu mu ci mënti demee en tout cas mbele mbir eh, yóbbu nañ ko ca péncum ndawi réew ma ngir sàkku ci ab commission parlementaire eh, ba tey nag yéene kaay bi na eh, mu ngi fesal Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko jamono ji lenn ñoru ko lu dul summi ba mu set ñi nga xamante ni ñoom ñooy Benno Bokk Yaakaar laataa ñuy jëm ca élection législative alors ñu jógee fa dem ci beneen quotidien beneen bu àddu aussi euh, jëm ci euh, leneen moom mooy. Euh, moom moo di. voilà donc moom mooy tribune sport mi nga xam ne d'ailleurs moom la ñuy jeexalee di wax ci actualité sportive mu ne fin de mandat du CNG vendredi prochain léegi daal di jeex mandat bi wante nag mu ne Diamanka mu ne Bekay mbay wala Moustapha Kandji wala Malick. Euh, Ngom euh, kan moo ko nara kan moo nara remplacer Bira euh, seen ca bopp ba alors nag lii nag actualité sportive la ba tey yéen kaay bi nag mu ngay fësalaat bu baax a baax a baax je pense blessure yi nga xamante ni rek Neymar am na ko et le Barça une triste fin jeexal na fa alors mu ngoog lii moo gënoon a fes si euh, xëtu yéenekaay yi mbokk yi amoon nañu mbégte di leen ko présenté jox leen dig daje incha allah ëllëg ci beneen numéro d'ici là portez-vous bien et gardez le sourire. merci beaucoup maman Mboup euh, euh, waa ma ne Bécaye Mbaye dafa dafa postuler. pour CNG bi. mais bon peut-être xam naa ni gars dañuy wax rek peut-être ñi nga xam ne jàpp nañ ni war nañ mën a. diriger diriger waaw seen. ce serait bien ah. Euh, d'accord yàlla baax na ñun Bécaye télé bi lañ ko gën a soxla de. ah Bécaye ci télé bi lañ ko ah, a soxla. Hmm. mag la mag ah? la de. waaw ah, kii du mag. Bira Sène bi yow diriger CNG. moom xam na xam na xam na mbër yi xam na xam na kii bi. peut-être il est secteur. nekk na ci secteur boo xoolee xam nga boo xoolee sport bon dem na ba. jamono toll foo xam ne ce sont les anciens sportifs wala ñu nekk ce qui ce qui gravite autour du sport dañuy kan. ko jox borom ah, baasu waaw nañ ko jox sax waaw ah, mën nañ ko jox on mais xam nga un ancien lutteur wala Moustapha Gueye xam nga problème bi avec les anciens ay Moustapha Gueye yooyu. nga problème bu nar a posé avec les anciens lutteurs. Hmm. ak animosité bu am entre ñoom. day day mel ni Yékini rek waaw au de animosité ndax je crois ay genre Tafaguère xam nga bu nekkee face imagine toi benn mbëru face am problème ce genre moom comment il va faire day indi problème man je. préfère ñu jël ñoo xamante ni bekkaay sax bu si bu bu buñ ko namee woon di nga dégg ay coow quoi parce que bon am ñoo xam ne jàpp nañ ni bekkaay dafa am ay mbërëm dafa am hmm. xam nga rek sénégalais quoi yàgg nañ ko fi naan per bekkaay da far père bekkaay lii ah. alors que bon jote na seen ku ne far gi hmm. <laughs> père bekkaay euh, suñu icône euh, nationale et internationale man dama koo bëgg rek ndeysaan yàlla yàlla guddal fanam bàyyi ko suñu kanam bu baax ndaanaan la mu ngi noonu merci beaucoup euh, pour li nga xamante ni rek mooy euh, revue de presse u Maman Mboup boobu noonu que vous allez retrouver en fin d'émission ci la revue de la presse